suñu tànk tànk jàmm rek la mooy dañoo jot ndigal ci suñu kilifa mooy madame le ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises euh, pour ñu ñëw xool li nga xam ne moom moo fi nekk ci mbirum approvisionnement marché Touba. loolu nag ndigal boobu mu ngi sokkeekoo ci réunion bi nga xam ne moom lañuy def altine bi passé xam ne dañoo woo waa commerçant yi nekk Touba ñu ñëw à Dakar ak yeneen ñi nga xam ne ñooy commerçant yi importé ak ñi euh, defar euh, produit ci biir Sénégal. ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa problème ak li nga xam ne moom lañu yaakaar ni loolu la ñu war a def pour que mu dox. ci ngir mbir loolu nag bu mu paree la soxna si madame la ministre joxe ndigal léegi direction du commerce intérieur ak service régional du commerce de Diourbel ak suba bu nekk dañoo war a def lu ñuy wax relevé de stock. mais aussi dañoo war a xool tamit li nga xam ne moom mooy besoin commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba pou que bu fekkente ni am nañu ay commande te yi xam nañu fu mu nekk. ñu lijjanti ko xam kooku ñu commandé lu mu nan la ci taxawee. moo tax léegi service régional chaque matin day def relevé de stock xam commerçant Touba bi lu mu soxla ci ceeb si diwlin ak si suukar mu wax ko directeur am directeur bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo mooy fournisseur ba. fournisseur bi nag moom tamit mu xam ni dafa war a toppatoo loolu te bu ñu defee système boobu bu ñu ko waxtaanee altine ba ba léegi ñun dem ñëw nañ tey pour xool ndax mu ngi dox. te ci wax ci kaddu commerçant yi nga xam ne moom ñoom la ñu seet gis nañu ni système bi mu ngi dox ndax ndaxte ñoom ñi xam gis gi wane nañu nii que balaa réunion bi am na produit yu bëri seen commande yoo xam ne ñu ngi tagoon dakaar ñëwul. waaye bi ñu defee réunion bi ba léegi yàlla def na ni seen commande yu bëri ñëw na muy si suukar bi muy si diwlin bi muy si ceeb bi donc loolu vraiment loolu la ñu mënoon ñëwoon pour xool saytu ko si tour madame le ministre ndax. mu ngi dox wala doxul. jàpp moom pénurie moom incha allah du am njëg yi tamit dina jàppandi ndaxte li mu nekkoon tey nguur gi am na lu mu ci def ci ay saafara saafara yi mooy nan mooy jël nañ benn arrêté bu bees pour fixer njëg yooyu. bu ñu ko defee dañoo ne région bu nekk gouverneur bi na jël moom tamit njëg yi nga xam ne mooy njëgu région am te Diourbel def nañu seen conseil régional de la consommation ba arrêté nañ seen njëg njëg yooyu léegi service régional. ak service départemental yi ñoom ñoo ko war a saytu di ko faire respecter ci kaw loolu ñun tamit tooguñu ndaxte dañu leen renforcer ci liggéey jox leen ay jumtukaay ay oto ak ay yeneen élément pour ñu gën a taxaw ci loolu. def naa ni directeur de commerce intérieur mu ngi fi taxaw lu mu ci déplacé ci ay élément def naa war na mu ay 15 agents en plus de cela dañoo yaakaar ni njëg bi boo gisee nguur gi def ko c'est pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo yi ñu mun ko jot yow tamit nga xam ne njëg yi yow lañ ko defal boo gisee ni loo loo xam ne jaaduwul ci njëg bi danga war a saisir service bi nga xam ne moom mooy service commerce bu nekk sa gox pour que mu ñëw mu mu taxaw ci mbir moom. ndaxte nguur gi dafa am lu bëri lu mu bàyyi ci ay taxes ci ay droits de douane pour que njëg mi mun a nekk fi fi mu nekk nii donc ku nekk da nga xam ne yow yaay sa contrôle bopp service du commerce nag dina ñëw jàppale la ci la kaw loolu.